bu ma ci Sénégalais yi meree nag buñ ma meree si li ma nar a wax. Ah. ngir démb si 13h si sama bureau nit seet si na ma ànd ak soxnaam nit muy soxla boppam nag moo ko andi si man ba loolu jeexee ma koy gunge mu dugal ma si waxu football. Hmm. ma ne ko Hollande dinañu gagné 2 à 0 tey hmm. waaw waaw. mu ne lu tax ma ne ko bi ñuy yóbbu baaxul mënul gagné Hollande loolu laa wax démb 13h moo tax bi Hollande marqué benn bu yem si maa ngi ñaan mu yem si sax ndax ma am gàcc ndax ma am gàcc maa ngi ñaan mu yem si benn bi ndax ma am ci gàcc si li ma waxoon par rapport ak ki ma ko wax ki nga xam ne wax naa ko ko bi Hollande marqué deuxième bi ma ne man ndekete juumuma se boo déglu boo xoolee tey télévision yëpp déglu chroniqueurs yi déglu les consultants ñi si wax yépp di nga gis défaut yi ñu wane yépp si match démb bi mm. man dama koo gis si classement bi ñu teg kese parce que man sama àddine bal la damaa xam football dama ko dunde ba tey jii football moo sa bonde maa nga fa mm. ba may juddu ba may nekk si mbedd mi ba may jàng lycée ba may dem université amul fu ma ne ci ma ci équipe bi di football ba football bi jeex ñun ñuy football footballu màgget yore nag équipe yi ba 65 ans ñu ngi football 90 minutes ñun mag ñi stade Demba Diop <laughs> ba may am 65 ans on faisait 90 minutes chaque matin de 10 heures à midi ah sama loxo bii damm moo tax ma bàyyi ko dama fa daanu mu damm euh, ñun waa Jeanne d'Arc ak ña gañe woon jeu de l'amitié 1963 ñu ngi nii. Mm-hmm. boo xoolee tur yi. Mm-hmm. ñooy sama génération football maa nga nele si kaw à droite. ñi taxaw fële à droite ñi taxaw maay cat la fële. Mm. boo xoolee si suuf ñoom Demba Coy la ñoom Suuri. maa ngi si Suuri. maa ngi si Suuri mu ngi nii sukk ah moo sukk ni sa ginnaaw yor ballon bi. Ah. moo yore ballon bi. Mm-hmm. à sa gauche euh, Baye Moussé à sa droite Demba Coy Demba Coy moo ak Baye Moussé ñoo jëloon l'aile droite quand le Sénégal a joué contre la Guinée. et que Sékou Touré la jeunesse révolutionnaire a battu les réactionnaires Guinée ñëw Sénégal 1962. Mm-hmm. Alou fekk dañ ko suspendre à cause des événements de Mamadou Dia. Mm-hmm. Sénégal réclamé Alou. ñu jëli Alsane Ndiaye mu ñëw di dox si yoon bi na mu daan daagoo pour faire le reportage de ce laay jaww ngi may déglu. Mm-hmm. ñoo daan bokk football ba 65 ans xam na li may wax ñoo ko bokkoon tam. ba Alou demee. ba ñu dóor Guinée 4 à 3 ñii la équipe bii la ñooy sama génération man nag nekku moon international mais ñoo bokkoon daal les équipes locales Jeanne d'Arc Gorée mm. Foyer et cetera. yow ban poste nga daan football. man à l'époque j'étais demi centre mooy libéro tey. Mm. mais ba ma nekk mag nag dama jël aile gauche moo tax bi ma gisee ne Sénégal ngeen baal ma de ailier gauche wala ailier droit buy yéeg dem renforcer attaque am newu ci laa ne Sénégal mënul gagner mm. Hollande. jeex na parce que tey les les latéraux les latéraux ñooy dem di pousse ailier droit yi di renforcer leel digg bi nag digg bi nag di leen mën a remplacer bu amee contre-attaque mm, mm. le football moderne c'est le football des latéraux ñun ba ñuy nekk xale latéral place am lay taxaw du avancer mm. benn waaye moo ko mos def muy Henri Diop Jeanne d'Arc arrière droit di dribbler ba camp adverse ba marqué foofu bi benn yoon la mos sa am Sénégal en trente mooy suñu époque ñun dañ naan taxaw benn place ku ñëw nag ñu jaay la doole nag fexe ba nga réglé. ñoom suuri di marqué bii yi ñun ñuy damm nit <laughs> a a da ah, nga jaaxle. da ngay dugg waa ji ba mu doyle. ñun <laughs> noonu lañ daan footballé mais yooyu défenseur jeex na. football day évoluer boo leen xoolee suñu match football démb xoolaat leen ko latéraux yi doo leen gis kenn ku dem nekk ailier dem di dribbler ba sa cat la wàcc xool leen Paris Saint-Germain arrière droit bi lu marocain lu mu tudd ci Hakimi xool leen mooy toj caax yi day marqué bi rek c'est day dem marqué di ji mais dinañ fexe ba bu ñu amee contre-attaque gars yi dinañ ko xaar place ba mu dellu si mm-hmm. on n'a mais yow léegi noo gisee kon Sénégal li des ci coupe du monde